sëñ Saliou maa ngi lay ziar bu baax baax a baax sëñ Saliou jërëjëf dégg naa kàddu yi eh, dégg naa wax ji eh, dama nekkoon ak ay partenaire mais incha allah suma ma libéré ci kanam dinaa la dinaa la woo oh, pour gën leeral parce que bari na ci li ñuy wax loo xam ne du dëgg bari na ci loo xam ne nga baal ma ci kàddu gi ay ay kàcc la eh, et puis li nga wax. Euh, ci suma njaboot ku ci nekk ak fa mu tànn boo tànnoon fenn da ngay obligé ñeneen ñi ñu fekk si la comme mën nañ la bañ a topp comme ni mu amee ci yeneen kuréel yi nit ki jël décision ñeneen ne ko defewuñu ko alhamdulilah ñun loolu daluñu euh, yàlla may nañu lucidité ba jël nañu décision boo xam ne ku ci nekk gis nga ci sa bopp jàpp naa ne loolu mooy posture bi ñu doon xaar ci man muy décision ak position bu ma assumé nag leneen li ci des lu ci waay wax it da ngay wax rek sa waxi bopp la euh, dégg naa ñuy wax ne le président Diomaye woo na ma téléphone c'est archi faux musuma wax téléphone ak Diomaye woo ma téléphone ne ma am na numéro privé bu ñu lay woo bu lay woo ci kaso bi joomay la woowuma waxuñu waxtaanuñu donc kilifa googu ma dégg muy wax Cheikh Oumar Diagne euh, mag la ci man duma ko wax wax ji teggin mais li wóor mooy xam na li mu waxtu dëkk parce que man musuma jokkoo ak joomay musuma waxtaan ak moom comme li ñu bëggoon nit mooy jël réew mi te jël nañu réew mi yàlla na sedd guy ci ñoom te li ñu yéene ci réew mi ñu am ko parce que nag loolu rek lañ leen mën a ñaanal bu ñu échoué ñun ñoo échoué parce que ñun ci suñu bopp dañu mus a bokk ci ñuy xeex Macky Sall ak ñi mu àndal kon képp koo xam ne toog na fi suñu yéene mooy yàlla na ko yàlla dimbali ba li mu yéene mu mën a sotti lu ko moy rek ñun danaan am gàcce parce que Macky lañu bëggoon mu jóge fi en tout cas kaddu yi nga xam ne wax nga ko sëñ Saliou dégg naa ko maa ngi la ci remercier di am mbégte euh, di rafetlu toujours taxawaay bi nañu gën a farlu ñoom ni ñu def ba jot ci réew mi ñun position yi ñu am nañu ko affirmer noonu gëme ko noonu doxale ko noonu ba suñu borom def ëllëg ñu mën a nekk dans de station de décision li nga ko waxee aussi noonu la man je ne suis pas un opportuniste politique je ne suis pas dans l'opportunisme du ne dama ciy bokk ngir mun a mos du ne dama ciy bokk taq ci ngir bu ëllëgee ñu mën maa boole waaw sëñ Saliou biñ ñu génnee ci pare parrainage ñun ñëpp dañ taxaw di xataraayu ne dañuy bokk moonte dem nañu ba ci biir man Bougane ma taxaw ne lépp luy bloqué processus électoral bi bokk ma ci nañu tëgg élection yi balaa la deux loolu Sénégal yëpp a ngi ciy bàyyi xel kon du man sama bopp moo ma intéressé waaye tey boo xoolee résultat yi zéro yi ak un yi bari na waaw est-ce que ñun bëggoon nañu bokk ci élection yoo xam ne ñun ay zéro ak ay un la ñuy am parce que ku ne xam na ne élection bi caractère référendaire la dañ doon xool kan moo gën a bañ Macky sàll pour kooku ñu féetale ko suñu ay vote maanaam un vote utile loolu la sénégalais yi def waaw élection yooyu nit ñi am ay un ak ay deux ñun est-ce que suñu tolluwaay un la ak deux déedéet waaw kon suñu borom mi ñu génne ci élection yi moom moo ñu muccal ci un yooyu ak zéro yooyu waaw mais suñu borom boobu xëy na moo ñu muccal ci war a dugal ci suñu loxo ci gestion x y wala z waaye nañ nag mu dogal suñu borom maintenant ñi cay nekk di wax nag man comprendre wu ma parce que comprendre wu lan la ñuy wax li ñu bëggoon mooy Macky jóge fi waaw Macky jóge na fi waaw Bougane dugaloon ci loxoom ak mu ñàkk ci dugal loxoom. jëm ndar jaare Potou jëm ndar jaare Kébémer jëm ndar jaare Dagana mais yëpp ndar nga jëm rek li ñu bëggoon mooy Macky Sall jóge fi yàlla def na jóge na fi pour le moment daal man Bougane maa ngi savourer suma victoire ci li fi Macky Sall jóge ak ñi mu li ci des nag loolu ci suñu kanam la pour le moment ñii fi ne nañu ñaan suñu borom ak Cheikhul Khadim mu jàppale leen ba yéene bi ñu am ci réew mi ñu mën koo matal te ñu bàyyi leen ñu liggéey jërëjëf sëñ Saliou